اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت في الأرعام ba mu nekkee ndox rek la yàlla xam ne kii góor lay doon walla jigéen lay doon loolu kenn xamu ko ku dul moom kon kooku moo am kattan kooku moo jar a jaamu kañ cay teg mooy ki mu nii wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dama la yónni nga nekk yërmande mu ñeel toute l'humanité kon mën nañu wax ni le muhammad alayhi salatu wasalaam mooy le sauveur de l'humanité ku yàlla yërëm ku nek ci barke muhammad alayhi salatu wasalaam moo tax yàlla yërëm la ndax soo ko bañee yàlla du la mukk mukk ànd ak nit ku baax day tax yàlla dimbali la ku weddi laaj Senghor bi fi nekkoon njiitum réew nit ku baax ci famille couleur yi famille tukulóor yi macha allah ay borom xam-xam lañu am na ku gis sengoor muy ñëw Senghor ancien président de république mun leen bàyyi leen ku mu ñëw xanaa xamu leen ni kii ëllëg day nekk xaj dina dugg àjjana waaye xaj lay doon xaju seen Fallou lay doon xaj lay doon la ko may Senghor mooy lan nit ku baax ki mu àndaloon te ku ne xam na ne Senghor du jullit yow nag ngay jullit am cofeel ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam dara du dox sa diggante ak dugg àjjana kenn mënu ci dara wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin ñu ne léegi da ngay joxe preuve joxe dalil dalil bi woné ni Muhammad alayhi salaatu salaam ku ko sopp dem aljana ndax wax ju nek warna am preuve warna am dalil ñu la demal nga xool benn téere bu ko tedd bind mu di Cheikhul Xadim mu tudde ko Jazbul Xulub la purification du cœur Jazbul Xulub parce que loolu la ñuy waxtaane gàmmu la ñuy moom nee na gàmmu farata la obligation gis nga nii ngay jullee ak woor ak dem màkk soo ko mu nee ak joxe asaka soo ko mënee nee na guddi bi nga xam ne Muhammad alayhi salaatu salaam ci la juddu nee na ñu gàmm ko nee na farata la obligation farata mooy loo xam ne da ko war a def par force loolu am na ñu daan dinjat naan biddaa la ndax muhammad alayhi salaatu salaam mosul gàmmu waaye comme ñu ko baax ni ñu baax ni ni ñu koy waxee gàmmu jàpp nañ ni këkk njëkk def mooy suñu borom parce que inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi kon nag yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lu yàlla def na mu gàmmoo moom moo ko xam na malaaka yi gàmmoo ñoom ñoo ko xam waaye ñun ni ñu war a gàmmoo am na ku tedd ku ñu ko bindal mu di Cheikhul Khadim mu di tahzamu bi sunnati yaxuduuna lil jannati nee na guddi juddu Muhammad alayhi salaam nee na na ngeen ko célébrer ci sunna taxzimu bi sunnati yaxuduuna lil jannati kon ku bugg dugg àjjana na nga gàmmu képp ku bugg dugg àjjana na nga gàmmu ñu ni Muhammad musul gàmmu am na ñu koy wax mën na leen Muhammad alayhi salaatu wa salaam jàkk ji mu daan jullee amul woon karo xanaa loolu tamit biddaa la moom jàkk ja mu daan jullee amul woon karo amul woon sa ventila ventilateur yow jàkk ji ngay jullee am na karo am na ventilateur xanaa kon yow li ngay def sunna euh, biddaa la te nag su fekkee ne yàlla daf ñuy dóor parce que dañuy gàmmu lan mooy gàmmu màggal guddi muhammad alayhi salaatu salaam su fekkee yàlla loolu moo tax mu ñu dóor nañu dóor nañu dóor ñun ñëpp su fekkee màggal guddi muhammad alayhi salaam moo tax yàlla dóor ñu waaye nañu dóor ñun ñëpp dañ koy màggal dañ koy màggal parce que c'est le sauveur de l'humanité wareef la dañ ko war a def ñu ni la yow mi nga xam ni ko màggal guddi muhammad alayhi salatu wasalaam da ngay dugg àjjana waaye nag dafa ni bi sunnati kenn waxula nga dem tiwaawan guddi gi yépp nga dox ba fajar nga jël oto ñibbisi déedéet taxsimuhu bi sunnati léegi ana nan lañ koy màggale ci sunna pour nga comprendre guddi googu nan lañ ko war a jàng alquran nga bëgg fanaaneel jàng alquran yaa ngi koy màggal ci sunna naafi la nga mën a def julli ay rakka julli say rakka ba fajar su la neexee yaa ngi koy màggal ci sunna wala sax xëy na zayu ya ba nga dem ngir déglu ñu tedd ñoo ñu nekk ak Tiwaawan nga toog diglu leen moo xam dañuy waxtaane ci muhammad alayhi salaatu wasalaam moo xam dañuy waxtaane ci ku tedd kooku moom El Hadj Malick na yàlla nga toog nga déglu leen ba fajar yaa ngi kay dundal ci sunna li ñu bëggul kañ xam nga mooy lan guddi gi yëpp nga fanaane ko nelaw wala guddi gi yëpp nga fanaane ko dox saa boo ko màggalee ci sunna yaxuduna lil jannati da ngay dugg aljana parce que bind nañ ci téere bi ni képp ku ko màggal ci sunna ëllëg bis bi yàlla di jaam dajale jaam yi bis bi yàlla di dajale jaam yi ngir xisaab leen ñu xool seeni jëf seen jëf yu baax yi ak seen jëf yu baaxul yi bis bi yàlla di def loolu yow mi nga xam ne danga nga màggaloon gàmmu yow doo ci bokk dangay dugg àjjana bi xayril xisaab bi xayril xisaab kenn du contrôler say jëf te loolu leen rek moo la koy may mooy màggal guddi Muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu dong moo la koy may bi xayril xisaab kenn du la xisaab xanaa mbokk yi loolu jar naa gàmmu ñun ak suñuy ñaaw ñaaw ak suñuy jëfan suñu jëf yu ñaaw ñun ak suñuy jikko yu ñaaw yàlla dugal ñu àjjana bi xayri xisaab te lenn rek moo ñu ko may mu di guddi muhammad alayhi salaatu salaam mbokk yi loolu ëpp naa nelaw loolu jar na adam ci waawoon màggal ko jar na jar na ko ñuy profité nag ci occasion bi pour ngir sargal wala gërëm walla ñaanal suñu maam ju tedd jooju nekk Tiwaawan te woote gàmm gi mu di maam suñu mag ñii amuñu seen fay su ko neexoon mu yemale ko moom parce que moom la ca gàmm xam na ko yemale ko ci moom yemale ko ci njabootam waaye dafa woo ñëpp ni leen ñëw leen ngir ñëpp mucc suñu mag ñi wallahi kenn amul seen fay loolu di benn wala ñaar ñetteel bi ñu ni la yow mi nga xam ne danga nga gàmmu dañ lay jàppe comme ku shahid martyr shahid mooy koo xam ni ëllëg kenn du ko topp dara jigéenu jullit ju doon am doom di mucc yàlla jël bakkanam kooku dafa shahid kooku kenn du ko topp dara yow mi gàmmu tamit ci sunna yow ak kooku yéen a yem képp da ngeen shahid kenn du leen topp dara moom ba léegi ci jazbul xulub mu ne ki nga xam ne dafa gàmmu te gàmmu ci na kooku dañ koy jàppee comme martyr martyr mooy ñi nga xam ne ñi ngi àndoon ak muhammad alayhi salaatu salaam di xare lu mel ni xare badar yow da ngay bokk ci ñooñu yow da ngay bokk ci ñooñu te lenn rek moo la koy may parce que da ngaa gàmmu te teg ko ci sunna mbokk yi lii lii yëpp ñu am ko lii yëpp ñu am ko ci benn guddi mais boroom guddi googu nañ ko gërëm boroom guddi googu nañ ko gërëm mooy gën gi mi ndeef lépp lu yàlla sàkk moo ci gën su dul woon moom yàlla du sàkk dara la ci gàmm googu ñu def gàmm googu ñu def ci guddi gi mooy tax jàmm am ci dëkk bi mooy tax xol yi dal mooy tax lépp leer ndax moom lépp dafa lëndëmoon mais bi mu juddoo ci la lépp leer guddi gi mu juddoo ci la lépp leer la lépp leer jaa al xaq wa zaha al baatil inna kaana zahuqan dëgg ñëw na ngir dàq caaxaan xoolal ñun ak suñuy bakkaar yu bëri ñàkkul ni def nañu bakkaar boo xam ni safar la ñu war parce que nit ki gàmm na julit di gàmm na yàlla nagul ko gàmmum waaye dundam yépp ay bakkaar la yu ko waroon a yëpp yóbbu safar bi mu deewee dañ cee woon téeréem ñun ko ikra xitaabaka kafa bi nafsika yowma alayka xisab jàngal sa téere mu jàng téere ba pare ñun ko gis nga lii ci bàkkaar gis nga lii nga def ci ay bàkkaar lii nga def ci ay tooñ yoo xam nga sa kër safara la waaye am na lu la muccal gàmm ga nga gàmm woon te yàlla nangul la ko moo la muccal ikra kitaabaka kafa bi nafsika yawma alayka xisaab moo tax c'est lui le sauveur de l'humanité Mohammed est le sauveur de l'humanité kon njëriñu wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mun nga ko gis ci gàmm mun nga ko gis ci gàmmu soo gàmmoo rek mucc fa in tutixu yuutikum allahu ajran xasanan bisu gàmmu ñu dem teewal gàmmu yàlla defal ñu àddina bu neex ak alaxira bu neex fa in tutixu yuutikum allahu ajran xasanan te xoolal sa alal di ngay jël di def ci gàmm nee nañ ku ci jël lu tolloog benn dinaar ci ma kuy dem Tiwaawan di nga paas su bonee ba bon di nga ci def 1000 francs guddi gàmm googu soo ci defee lu tolloog 1000 francs benn dépense boo ci def waxuma lekk de waxuma lekk waxuma naan waaye benn 1000 francs boo def ci guddi gàmm googu mucc nga mucc nga mucc nga yàlla dafa am ko xamni mom la bëgg zalik fadullah yuti man yasha yàlla moy jël ngëneelam mu jox ko ko neex kan la ko jox muhammad ali alayhi salatu wasalaam fonk bi nga ko fonk wala fonk bi nga fonk bu dem yàlla du la toppati dara te ni ñu jéma xam nak muhammad ali alayhi salatu wasalaam mooy kan ko xamni yow yaay sëriñu cheikhul khadim ko xamni yow yaay sëriñu mom El malik koo xam ne yow yaay sëriñu Baye Niass kooku nañu xam kan la ñii ma wax nii ku ci nekk mun na téye jamono ñii ma la wax nii ku ci nekk mun na jubal jamono waaye ay taalibe lañu ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam ay taalibe lañu ci moom mbokk yi ngelaw nañ ko dundal ci sunna loo mën ci jàng alquran jàngal alquran loo mën ci ay salaatu alal nabi yi loo mën ci salaatu alal nabi yi def ko ci guddi googu ngal la ci def caaxaan mukk loo mën ci ay naafilaat ci guddi googu def ko ci nee na lekk leen naan leen waaye bu leen yàq de dépensé leen ci guddi googu waaye bu leen yàq la gën nag ca la nit di dépensé mooy lu mel ni suukar walla yàpp ñaar ñoo ñoo ñëw ci téere bi lu mel ni yàpp wala suukar ba ngay dépensé ci guddi googu wallaay la mu lay jural xamoo ko sax kon que ñun am nañu mucc lii nag ginnaaw dégg bi lan moo ci topp jëfe nit a ngay dund di dund di dund luñ ko wax mu dugg fii génn fële nit a ngay dund di dund luñ ko wax mu dugg ci bii nopp génn ci beneen nopp du ko jëfe mukk loo wax mu ne dañuy wax rek ba ëllëg yàlla dugal la saxiir parce que la taxoon ngay mucc dafoo ko nga ni naa kunna nasma'u aw naxiyul maa kunna fi asxaabi saxiir nga la waxoon nañ ma de nga la déggoon naa ñuy wax de ci waxu gàmmu law nas nasmaaw waaye bi ma déggee nag xelluwuma aw naxiilu xelluwuma su ma xellu woon maa kunna fi asxaabi saxiir kon nit ñi nekk ci safara duma ci bokk kon nga la mbokk yi ñun ñii yàlla may dund ñu bokk ci xeetu muhammad alayhi salaatu wasalaam guddi gàmmu nañu gàmmu ci fu nit di gàmmoo bëri na waaye suñu maam bu tedd boobu dafa woote maam El Hadj ni ñëw leen dañ koy wuy yi de Tiwaawan la ñu jëm ñun ñëpp ñu gàmmu ci ñun ñëpp Tiwaawan la jëm ñu gàmmu ñun ñëpp nañu dem Tiwaawan ñu gàmmu ji te mbokk yi fa ma koy tëjee dafa am benn lu ma leen di nettali man maa ko dund en 98 su ma juumul tey Tyson ak Manga ñoo doon bëri boobu fekk na maa ngi doon toppatoo pour dem Allemagne ñu jaay ma benn billet avion boo xam ni dafa am ku ko jëndoon mënatul dem mu jaay ma ko ma waroon na jël billet boobu rek daal di koy muté ci sama tur pour mën a dem Air Afrique boobu agence Air Afrique ni ngi place de l'Indépendance li ma tere woon muté loolu xam nga lan la juróomi junni aw ma ko fu ne dugg naa ko mënuma am juróomi junni te dama war a tukki jaaxle na ma dugg ci benn kër samay xarit ay tijaan lañu bi ma duggee ci kër gi maa ngi gis photo Serigne Babacar Sy yal na yàlla yokk leeram photom laa jaa laa jàkkaarloo jaaxle na de ma ni sama biir xol bi yàlla su fekkee góor gi lii ñuy wax ci moom dëgg la que ku wax ak su rusul woon yàlla ku wax ak ku wax ak moom ci photom mu tontu la su fekkee lii ñuy wax ci moom dëgg la sama soxla gi yàlla na faju balaay 3 heures billahi wallahi taala wallahi onze heures ma jug dugg ci kastoor dajeeg sama benn doomu bàjjan man sa yaayam ak sama papa ñoo bokk ndey bàyyi mun ma lan ngay dox man ko lii laa war a muyte sama tur te 25000 la amul mun ma Babacar mi ngi fii belleer benn benn pharmacie la amee demal berleer Babacar mi ngi foofu amee pharmacie ma dox ci naaj bi la ma yóbbu sa aw ma de ma dox ba gis ko fekk ko ci pharmacie bi mun ma rakk ji lan la man ko dama bëgg voyager mais sama ticket bi dama ko war a muté vingt cinq mille moo ma teree muté ma def ko sama tur mu xool billet bi pharmacie la amee ubbi trois bi jël cinquante mille def ko ci enveloppe bi man xawma sa lu ci nekk jox ma cinq mille ni ma pour say passe ma génn ci pharmacie bi ubbi mu nekk cinquante mille ba may wax ak loolu góor gi c'était onze heures midi midi midi loolu saafarawu na midi te la ca gën a yéeme mooy ka ma jox xaalis bi baabakër la tudd Babacar moo tax nitu yàlla yi mbokk yi lu ñuy wax ci ñoom lu nekk nañ ko xam nitu yàlla yii moo xam laayeen la moo xam muriit la moo xam tiwaawal la moo xam ñaseen la moo xam cenaba la lu ñuy wax ci ñoom lu ne nañ ko xam ñii ay nitu yàlla la lañu mbokk yi wax jaañu noonu lépp lu ci jub nañu xam ni ci buur bi lépp lu ci dëng nañu xam ne ci man la waaye daal li may sàkku ci mbokk jullit ñi ñun ñëpp nañu dem Tiwaawan ñu gàmmu ci salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu الحمد لله الذي أرسل للبصر يا جماعة في أسد أخواتها تأزما وتعصبا وعسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة محدة للعالمين وهو الصادق الأمين المحمود في كتاب الكريم بالخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم أحمده سبحانه وتعالى على ما من علينا من النعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما موجود غنى من شانت الله سبحانه وتعالى مم ميغا خامني مو ني مو موتاخ لوكو نيه لا جيفنديكو سي kon bu nu ganee aduna coobar suñu borom la suñu génne aduna tamit coobar suñu borom la kon yépp nañ ko dellu si yàlla subhanahu wa taala yàlla moomu de moo yónnee si ñan la yónnee ci mbooleem mbindeef yi ci jamono boo xam ni na dal jamono par par loo fees dal jamono jafe-jafe yu dul jeex feesi jamono waaye mu bëgg a dabaatal moo tax mu yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk yërmande nekk cadeau ñaal moo la mbindeef yi sang boobu de mooy ki nga xam ni ku dëggu ci wax lépp lu mu wax rek dëgg la. waaye ku wóor la ba li jiit ñu koy yónni ñu tudd koon saadixul amin mooy ki nga xam ni yàlla tàggal si alxuraan tedd bi si jikko yu kawe ak jikko yu rafet wax ni ko yaa féete kaw bépp jikko bu tedd bépp jikko bu sell kon daan sant ñeel na yàlla mi nga xam ne moo ñu baaxee xéewal googu tamay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu gi ànd ak la ku dul moom kon boog nañ jaamu yàlla te nañu sellal jaamu gi ndax loolu la ci bëgg ñu seede ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa jaamam la yonentam la moom day wax na ni li tax ñu yónni ko mooy mu mottali tedde ngay jikko yi kon amoon na fi waaye am na lu mànk woon kon dafa ñëw pour mottali li nga xam ne mu manqué woon kon xéewal ak mucc yàlla nekk Seydina sallallahu alayhi wa yi yàlla dafa ñu mutul tey defal ko mboolem jullit الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم تتجلى في عزمة خلقه وكبر روحه وصفاء قلبه ما جعل الله سبحانه وتعالى يمدوه محاسنه, محاسنه وآدابه وأخلاقه الحميدة وهو صلى الله عليه وسلم زاهد عابد وهو صادق الأمين هو القائد الحكيم وهو مربي المعلم وهو البطل العادل من كل وصف حميد قاد أفعل تفديل رجاء البرايا يوم المستحم ما جعل الأسود الحسنة مصداقا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسود حسنة والخل الأمثل للأزمات هو العودة إلى معنى السافي والإخلاء بالأسرة الحسنة سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث ولم يرسل إلا رحمة للعالمين والذي نحن الآن على سرد احتفال بذكر مولد الشريف ألا عزموا ليلة لا حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mbokk julit gannaaw bañ sante yàlla subhanahu wa taala julit si yonent mu tedd seydina mu sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu ñu xam ne de seydina seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit la du malaaka du ginne waaye yàlla nit la ko def waaye nag niteem nag moo féete kaw nite ñëpp te liy feeñal ak nitam nag waaye tedde nga jikkoom ndax moo raw ñëpp ci jikko bu rafet màggaayu ruuxam rafetu xolam kon ñemu ceeg mbindeef moo tax yàlla subhanahu wa taala di tàgg ay rafet rafetam di tagg ay tegginam yu rafet di tàgg tamit ay jikkoom yu yu tedd yu màgg ndax seydina moom sallallahu alayhi wa sallam kuy dëddu àdduna rek moo la gën a dëddu àdduna donte montagne projet projet lu nekk kaa ñu nekk wurus nga jaay ñu pour jëfandikoo ko waaye teewul dafa dëddu àdduna te am na lépp nag mooy ki nga xam ne kuy jaamu yàlla moo la dax jaamu yàlla mooy ki daan la ba ay tànkam di niwi dem bu du mën a taxaw muy tàkk ay xeer si biiram pour mën a naafilal yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam kuy dëggu moo gën a dëggu kuy gën a ba tax ñi ko gëmul woon sax di ko te kon ne ku nekk la ko dénkoon soo ñëwee loolu nga fay fekkaat du ko weccee du ko so du ko jaxase keneen mooy ki nga xam ne mooy gidd koo xam ne ku topp si gannaawam rek mu teg la si yoon mooy ki nga xam ne ku xarañ ci lépp lu mën a doon mooy yarkat xam ne ko jox sa boppam mu yar la ba nga jubal sa borom mooy jàngalekat ku ko jox sa nopp am xam-xam mooy jàmbaar boo xam ne lu nekk daj nekk si toolu yàlla pour kàddu yàlla jëm kaw mooy ki nga xam ne ku màndul la lu mu la mere mere lu ngeen ñàkk juboo position du tax bu amee dëgg tamit mu jox la dëgg te xoolal suñ jamono yi yooyu yëpp dafa tumuraanki jikko yëpp raaf na moo tax yàqu-yàqu bi feeñ kenn ku nekk di jàmbat yaa ma def nàngam waroo ma def nàngam parce que su fekkoon ni àdduna yëpp ñaari jikko yi bu fi daje woon mooy màndu su fi màndu daje woon dëggu daje fi ak wóor lépp bu baax waaye tey koo fi wóolu mu war la waaw bu la nit waxee ba nga jàpp si boo gestoo yëg ni la mu la waxoon ak la muy def benn wuute na kon nag Seydina Seydina Muhammad sallallahu alayhi bépp jikko bu ñuy melal nit di ko tàggi moom moo nekk sa jombaxtal ba ca kaw ga féete ñëpp kaw ñépp moo tax mu mën a nekk royuwaay ndax ku la tanewul du la dimbali moo tax mu nekk royuwaay royuwaay bu rafet da yàlla subhanahu wa taala wax ni su ngeen bëggee ku ngeen roy de am ngeen ku mat roy waaye sëkk te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax côté boo xool ci moom rek mat sëkk amul benn côté booy xool ci moom naa bu doon nangam donte wax na ni ku ñuy lim say baax baax ku ñuy lim say bon bon baax nga naa diwle baax na waaye bu doon nangam nee na kooku baax na waaye yentu saa sallam mënoo wax ni bu doon nangam ndax lépp moom mat mat na roy waay sëkk kon jafe-jafe yi am ci àdduna crise yi fi am yëpp lenn rek moo ñu ko teg mooy ñàkk delluwaat suñu naan waay ñàkk roy suñu roy waay te mooy ki nga xam dañ ko yónni suñu bu mu nekk yërmande nekk sauvetage te ñaar lañuy ñu bàyyil muy alxuraan ak sunna waaye dem nañu ba jàppe ni alxuraan mënatul régler suñu problème dem ba jàppale ne sunna suñu problème léegi ñu ut suñu problème yu bopp moo tax yi xew yépp xew kon nag bu ñu bëggee defarwaat dañuy bàyyi suñu tërëm yu bopp dem fekk suñu tërali suñu boroom yi mu jaar seen nam salaas yi ñu jëlaat ko loolu rek moo mën a sauver àdduna kon nag moom dañ ko yónni pour mu nekk yërmande nekk sauvetage moom mi nga xam ni ñun kat ñu ngi nii di waajal màggal guddi juddoom yàlla yàlla mottali yépp yàlla nañ ko tal yàlla yàlla lewatal yoon ñëpp kenn ku nekk ak foo mën a dem waaye suñu maam ju tedd yooyu nee màggal ga da am na lu ci bokkul mooy nañ ko teg ci sunna teg suñu yàlla bëgg bañ ko teg suñu bekken kon boog nee na màggal leen guddi juddi yonent bi sallallahu alayhi ko ñëpp màggal waaye nag su fekkee ne nag boo leen ñu loo xam lu xaram la ndax yàlla moom lu xaram bëgg ko fen bëgg juddi yonent bi sallallahu bëgg ko si weer bu mu mën a doon bëgg ko si jamono bu mën a doon kon nag kuy màggal judd yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay fexe lépp loo xam ne yàlla daf ko tere nga moytu ko lépp lu mu digle tamit nga nekk sa yàlla yàlla saxal ñu si yàlla yàlla xëytal ñu si yàlla yàlla matal ñu ko allahum yaa shahidan ghayra ghaib wa yaa xariban ghayra bayid wa yaa ghaliban ghayra ma'ud ij'al lana min amrina farajan wa makhraja warzuqna min qaysi la nahtasib waghfir lana dhunubana wa thabbit rajaaka fi qulubina hatta la narju ghayraka ilallah barakallahu lakum ayat bi zikri hakim واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين قم الى الصلاه يا اخوان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت